aussi tamit ñu gis ne ministre des affaires de l' étranger euh, génn euh, convoqué ki nga xamante ne mooy ambassadeur Ukraine bi parce que dafa am ay sénégalais yi nga xamante ne dañoo dem foofu bindu ji pour bëgg pour bëgg ñoom ñu jàppale leen pour ñu dem guerre euh, fee ci Russie maman loolu naka nga ko gisee ay sénégalais yi bëgg a jug dem bokk ci guerre bi nga xamante ne Russie la amee. ah loolu moom pour wax ci dina metti li ma ci mën a wax mooy ñaanal leen. ci barakati laa ilaha illa muhammadu rasulullahi ñaan ko yàlla subhanahu wa taala ba ñu bëggee lakk ibrahima yàlla taxaw yónni jibril taxaw ne ko naka wax yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahima mm-hmm. loolu laay ñaanal waa Ukraine ak waa Russie jàmm dellu si mais Sénégal yi bëgg a dem bokk ca guerre ba loolu tamit meer doy na waar ay Sénégal. non xam nga man loolu affaire état la te man nekkuma ci état. ñoom kay ñoom ñoo bëgg a demal. waaw ah suñu bëggee dem. xëy na dañoo bëgg a àtte ji rek. xëy na dañoo bëgg a àtte ji ndax te jii bu Sénégal amoon guerre yàlla tere yàlla bu mu fi am. Mm-hmm. yàlla bu mu fi am Ukraine mën naa ñëw taxaw àtte. taxaw ci diggante bi. loolu geste bu rafet la wan leen ne ñoom ak waa Ukraine nag waa Russie yëpp benn lañu ñun ñëpp yàlla ñu bind mais loolu balaa ñu caa yegg Sénégalais yi balaa ñoo dem yal na ci yàlla def jàmm wis ci ndox mu sedd wis ci galaas ñu juboo bu ñu mois de mars xel yëpp tey dem ci aji Sarr ak Ousmane Sonko euh, ñu gisoon Adji saar def benn sortie bi nga xamante ne dafa génn instant fu mu nekk dafa sonn parce que amatul liberté ba pare ñu di laaj xaalis pour mu génn dem bitim réew mun a mun a récupérer euh, maman naka bu nga déggee sortie bi ndax nga ko dundee. xam nga Adji Sarr moom maa ngi nuyu waa àdduna mais Adji Sarr dafa war a noppi. dafa war a noppi. Adji Sarr noppi Adji Sarr. ñu amerde vraiment nu nous emmerdes kenn du ànd ak yow ñi ànd ak yow yëpp ay naafiq lañ c'est pas parce que jigéen nga rek da ngay faral jigéen ci loo xam ne du dëgg man faruma benn camp budul camp wu yàlla teg ci yonent bi ndax yàlla moo indi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg fa du ma camp wu Sonko du ma camp wu Macky bëgg naa ko parce que il le président de la république son excellence moom la fi yàlla teg ak première dame ñu jiite réew mi ñoo tax senegal am coupe ñoo tax sénégalais yi belli moo tax sénégalais yi béggee xol yi féex. aussi bi ñu ko déggee ci RFI moom mu euh, mu génn ne te boobu dafa mel ni dañoo ñëwee Ousmane Sonko moo tax euh, maanaam ci kii waxaguñ ci boobu ba léegi. mais moom moo wax moom moo wax lu dul dëgg moom moo moom moo waxul lu dëgg moo wax ñaari wax ñu solool ko mel ni ibaadu keroog micro yi ñu ko roofaj que li ko doon waxal yëpp nit ñi gis nañ ko. gis nga jàpp mu dafa am ñu nekk ci ginnaawam di ko pousser. il faut il faut être correct dans la vie. il faut être correct. Adji Sarr tu nous emmerdes le 4 mars la wala le 3 mars le 3 mars 14 nit faatu benn nit ndaw benn bu génn àddina rek pertement Sénégal après seen mbokk ñi ngi jooy ba léegi te euh, te maanaam noppeeguñu mhm. mënuñu leen taxaw sax ndax bakkan bu dem bakkan bi dem na amatul remplacement mënatoo fii ëmbaat ba juraat fi tey jii doom ji toll noonu doom ji am dix-huit ans wala wala vingt ans loolu mënta am aji Sarr ba nga waxee répété répété nga yàqal sa bopp Ousmane Sonko yore ne fetal ñaari fetal mais Ousmane Sonko jëlu fetal yi teg la ko ñaata yoon nga jaaxaanal Ousmane sunk Ousmane Sonko góor la góor la yow mii sax bu la Adji Sarr jaaxaanaloon eh, nga jaar forow fa Ousmane Sonko jaar dëgg la nañ waxante dëgg c'est que dama rus àddina bi may seetaan moo tax yeneen yu bëri duma ko mën a wax mais aji Sarr bu waxee répété répété répété kooku ay wax bu jeex la moom moo doon jox boppam Ousmane Sonko te góor gu ne góor la góor boo taxaw ci kanamam def ab sitin kese def si maillot de bain kese slip kese di ko maase Adji Sarr munoon ngaa dem mbindaanu yu sax weer vingt mille wala weer cinquante mille mais yaa tànn métier doon masseuse say morom masseuse a fi nekk déggoo problème bii nga wax ñoom ñu am ko ñun nag sunu doom ñi dootuñ nangooti fii Sénégal en tant que Selbé Ndom patriote taalibe Serigne Touba ki Seydina Mohamed bëgg yàlla tànn ko def ci podium bi alquraanu karim muy wax loo xam ne ñëwagul man lépp lu bon Sénégal du Adji Sarr wala keneen ak keneen lépp lu yàq sama réew ànduma ci Ousmane Sonko gisuma ko mosum nga ko gis ak bët xaw ma kër Ousmane Sonko Macky Sall gëj naa ko gis 2009 Marème Faye Sall mosuma koo teg bët kon maanaam faruma fenn yàlla laa àndal yàlla mooy sama lépp yàlla mooy sama lépp. teg ci yonent bi ndax force la jullit boo fonkee yàlla yàlla moo la indi Seydina Muhammad ne la mooy xayru xaqila moo leen gën yéen ñëpp kon maanaam aji na bàyyi mënatulal yëngal ci mars la yëngaloon ñëwaat yëngaat yëngalaat mars waaye jinne Sénégal bi yoon bañ nañ jinne bañ nañu deret deret jeex na ndox la ak fiix Sénégal moo tax sama doom woy xol yaa ngi fiix na arrêté waaw maman comme moom ni ñu ko waxee mais aussi am na ñu génn tamit ne euh, c'est très normal Adji Sarr génn parce que jigéen la boobu léegi ñu ngi koy denc boobu léegi am mënatul amatul liberté amatul euh, munatul génn dem fenn est nekkul tamit loolu moom moo moom moom moo tax mu génn def sorti boobu. xam nga bu fekkoonte ne maanaam ba mu waxee. ne leen daf maa fekk foofu ma di ko maase. mu forcé ma Sonko fekk mu nokki jànq. bañuwaar bañ koy maasee bu nekkee ca biir bañuwaar ba la Sonko tëdd ak moom patron bu ñëwee day fekk xale bi tëdd ñu ñëpp ay jigéen lañu première góor yegg sa kaw deret dina dina génn te booy jóg dañ lay jàppoo dañ waxante dëgg. maman loo bëgg a wax. waaye mais moom ci boppam moo ne répété répété répété mooy nangu su yuuxoo. Mm-hmm. wooy wooy wooy wooy wooy mais bi am na yaakaar nga ne am. déggoo li ma la wax xam nga man fekkewuma ko mm-hmm. moom li mu wax rek ci laa mën a jaaraat répété répété répété boobu moom laay lay xamal ne kon nekkatul viol. Mm-hmm. da ko def pour plaisir. xëy na nopp na Ousmane Sonko Ousmane Sonko gentleman la Ousmane Sonko góor la du jigéen moo xam parce que Ousmane Sonko ba tey jëlul loxoom teg ci kaamil ne musuma laal Adji Sarr xam nga gisoo ko. maase fu mu am. déggoo non xam nga góor la am na droit dem maase ji. Mhm. Sénégal li fi ne. Mhm. ku bëgg demal. yàgg sa bàmmeel yàgg sa bopp. Mhm. mais bul nangu nit def ak yow dara ba pare nga wëlbatiku bëgg koo indil problème. répété boobu su nekkoon benn yoon dong la bu ko waxee fenn bax ji nekk benn dong kon ba tey yoon teg na loxo Ousmane Sonko. def nañ Ousmane Sonko lim ko war a def ndax Ousmane Sonko nit la kom ñëpp citoyen la comme ñëpp man mii su ma defee lu jaaduwul dañ ma naan ràpp ci kaso bee kaso bi kenn moomu ko yoon moo ko fi kon maanaam mënatu la fexe nii nii man faraluma usmaan Ousmane Sonko de faraluma ma Sall de taalibi Serigne Touba la yàlla laa faral moom mi ma may may noy ma may may xool di ma may may dox ma mën a yëkkati baaraam di buuse dama sant sama borom c'est parce que ne dama ànd ak Ousmane Sonko ba tax may xaj xas Adji Sarr Adji Sarr moo xas lu boppam ñu gën a bon Adji saar ñoo fi ne ñu bën a gën a gën a dàq def lañuy def Adji Sarr ñoo fi ne mais Adji Sarr dafa commencé télécharge ci sénégal yi. mais aussi tamit gis nañ ni ah, bu mu génnee def na benn polémique moom est-ce que loolu yaakaaroo mu àndiwaat dara fii ci Sénégal. affaire la rek affaire la rek affaire la rek. nit ñi maa ngi leen di ñaan. peuple sénégalais. sénégalaise man Selbé Ndom maa ngi leen di ñaan bu leen bàyyi ci Adji Sarr xel ci li muy wax dafa bëgg lëm seen xel yi indi leneen loo xam ne amu fi parce que temps yi ñu ngi ci jàmm yàlla may nañu président de la république son excellence monsieur Macky Sall macha allah koo xam ne maanaam euh, mi ngi ñafe pour lu neex Sénégal mm-hmm. naroon na ñoo dund ba dee te nañu am train euh, maanaam train président buy liggéey la ilaa Touba bi ñun dañ daan xëy ñu dëkk Touba mu ñu suul suñuy waajur Touba denc leen fa ñu jóg fii jóg suba teel dem Touba balaa nga egg guddi léegi nag deux heures de temps ilaa Touba da ngay egg Touba jàmm macha allah di ko sant président ñu ñu daan jëgaane stade stade dem ba la lañu am Iba ak stade bi. macha allah. bu ñu tuddee maître Ablaye Wade. non non non après mu ñëw indi ñu stade boo xam ne dipp nañ ko sunu papa suñu maam Abdoulaye Wade tey Sénégal mën na organiser coupe d'Afrique ndax hôtel a ngi foofu mu tabax yo yor solu stade bi macha allah président mi ngi liggéey te dina fa tabax yeneen ndax benn hôtel boobu rek doyul maa ngi lay ñaan nga tabaxaat yeneen ndax coupe d'Afrique bés bu ñuy dem ba di ko organiser. waa Afrique yëpp ay ñëw waa Europe yi aussi mën nañ ñëw nañ ko bàyyi mu liggéey tey jii dañoo bëgg suul Adji Sarr nii dafa bëgg suul li président def moo tax muy indiwaat polémique ndax xam na ne temps yi Sénégal mi ngi ci jàmm amul xuloo amul xeex léegi mu bëgg bëgg indiwaat fitna ba ñu fàtte jëfi président def jaajëfal ñu war a jaajëfal président de la mais mais tamit maman bu coow la amee ñëpp nee nañ état bi moom moo xaw moom moom non man gëwuma loolu man gëwuma président amul jotu di kombaloo kenn Macky Sall mi non man gëwuma ko Macky Sall amul temps ndax gis nga li yàlla rëdd bu ne Ousmane Sonko de doon président Ousmane Sonko force li xale yi doole mbaam day nekk président bu yàlla ne Karim Wade mooy ñëw avance Ousmane Sonko ci kàttanu yàlla Karim wadd mooy doon président yàlla rëdd na yëf nit di yow boo waroon doon président di nga toog deux ans xool leen bi may waxee 2009 laa wax Macky Sall tu seras le quatrième président de la République 2009. Mm-hmm. après dinaa indi photo bi maanaam mu toog 2010 2011. 2012 mu nekk président. 2019 la Sénégal jubilé ci coupe pour war a am coupe d' Afrique 2020 2021 2022 ñu am coupe nguur bu la ko yàlla jox wala benn affaire bu la ko yàlla jox di nga ko di nga ko téye deux ans te yow doo ko xam.